soxna Aida Diallo yow laa ñëw pour waxal soxna Aida Diallo wax naa la téeméer yoon bul fontoo nit ñi soxna Aida Diallo moomu laa la wax te nekk ci Cheikh Béthio yow nga topp Serigne Saliou Samb mi nga xamante ne góor jigéen la Serigne Saliou Samb moom góor jigéen. ak bëgg jigéen ak topp ci taatu jigéen ñi la topp waaye topp lu diine wax topp lu alxuraan wax moo tax keroog ba seen euh, seen TV euh, ba ba Masaalik bi bañ ko invité muy wax ci rajo bi def nañ erreur waruñu ko woon invité muy wax ci rajo bi waruñu ko woon invité muy wax ci rajo bi ndax ab góor jigéen la képp lu tas si kër Seex Béthio rek sax sëñ Saaliw sëñ Saaliw Sàmb moom moo ko tas dégg nga moom moo ko tas nekk fi lu dul di jaxase euh, famille Cheikh Béthio di jaxase famille bi ñoom seen biir ñuy am problème guddi ak bëccëg soxna Aida nag li ma la waxoon mooy yow déggaloo sëñ Mountakha sëñ taxaa ak murit yi nañ jàpp ni yow déggaloo mu képp kuy taalibe sëñ Touba na jàpp ni yow dangaa wàcc ndigal déggaloo Cheikh Béthio déggaloo sëñ Mountakha déggaloo sëñ Bass Abdou Khadre soo leen déggaloo yow ak sëñ Fama Saali moom ak ñoom soxna Botoor ak ñi ma xamul ndigal bi ñu leen jox di ngeen ko def mais amoo leen amoo leen euh, amoo leen euh, taalibe parce que ku am bi suñ la waxee da ngay jëf mais képp kuy murit na seede ni yow amoo taalibe yow da ngaa war Seex Béthio intérêt moo la indi woon kër Seex Béthio intérêt bi jeex na Seex Béthio gaañu na bëgg nga léegi nangu ànd damay am taali taalibe damay dugg fii dajale say nit. mais fii munoo ci dara li yàlla def munoo ci dara képp daal kuy topp yàlla ngente bi ak sunna sunna rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam topp diine na dem ànd ak euh, sëñ Saliou Thioune sëñ Saliou képp ku àndut ak moom topp jigéen ñi nga xamante ne xeesal ba weex di farantu seen biir ay bandi ak ay taxawaalukat kese kese kese ñoo ànd ak yow yow soxna Aida Diallo ay taxawaalukat kese ñi nga xam ne dañuy taxawaalu doxaanante seen biir doxa seen biir aaya sax boo leen waxee tari ko duñ ko tari julli sax lenn seen diine xamuñu ko ñooñu ñooy dang-dangi di ànd ak yow mais bu doon yow da ñëw pour topp yoonu Cheikh Béthio bii ki fi sëñ Mountakha teg di sëñ Saliou Thioune da ngay ñëw ànd ci yoon wi xam ni murit ndig murit sax yoonu murit tegu fi loolu loolu du ndigal loolu du nga xamante ne ndigal la wala ñu ne yoonu murit moo fi def lii wala yoonu murit moo fi def laa loolu la diine santaane yow nag la diine santaane nga jël teg fee ngeen bugg a def seen seen kii yu comme ni ñuy wax malfaiteur bande yooyu def seen gang nee na ooy dañuy ber nit ñi day génn Tuubaa xaw ma dem ban dëkk defi fa màggal gi ànd ak ay gangam dem soxna Aida Diallo yow yow ak sëñ Saliou Samb moom mu Mountakha si boppam recevoir leen sax waru ko def di leen recevoir nii sax waru ko def parce que sëñ Mountakha recevoir bi mu leen di recevoir noonu mooy tax ngeen jug ngeen fuy ngeen jug. sëñ Bass Abdou Khadre recevoir ay recevoir ma nga keroog sëñ Saliou Samb naan togg nañ togg yóbbu nañ ko fa yow seytaane bu rëy nga sëñ Saliou Samb ku la gis ku la séen sax ngay dem xam ni ab naafiq nga yow yow sëñ Saliou Samb moomu di ànd ak si ay dajaal taskatu kër nga yow alal moo la indi woon kër Cheikh Béthio alal kese Cheikh Béthio gaañu na xam nga ni yow bu dee ñëw nga ci góor ñi ñoom dañ koy jaarale ci yoon nga ne xaaral nga dem topp ci taatu jigéen ñi di raay ngeen di doxaanante seen biir di bëggante seen biir yéen ak ñoom faama saalihu di nobante seen biir naan da ngeen di màggal lu ngeen màggal màggaloo leen dara ay bandi ak jigéen ñu nga xam ne amuñu kilifa ñoom ñoo jug di leen topp di ànd ak yéen mais képp ko am kilifa ku am looy bëgg am looy bañ doo jug naan dangay ànd ak ñoom ñoom ñoom kii ñoom ñoom ñoom ay Diallo loolu nag laa ñëw pour wax la parce que yow sa banditisme bii dafa bëgg a ëpp nit ñi seetaan la ci nag ma yax nit ñi de la jey naan dafa dem feek ma yax mu mu ngi dem Mali yow kon li sëñ Mountakha wax li sëñ Mountakha wax defoo ko képp kuy murit na jàpp ne li sëñ Mountakha wax rek defoo ko da ngay rafetal rek dem foofu naan waa man nag ñu ngi dellu si si ndigal li nangam ak nangam ñun ñu ngi dellu si lii mais lépp lu sëñ Mountakha wax suba mu ngoon ay da jàll yoo defoo yow lu la neex ngay dem ak sa bëgg-bëggu bopp ak lu la arrangé ak lu la neex moom ngay def mais képp lu sëñ bi wax suba ba ngoon ne ndigal kii def naa ko yow Aida Diallo na ñëpp jàpp ni xëtt nga ndigal lool yow nekkoo ci ndigal lool yow loolu la neex instant bi ngay def loolu a neex ngay doxale loolu la neex def képp kuy murit nag ak képp ku nga xamante ne jullit la na jàpp lool yow ñoom soxna kii sax nam tuddati ñi nga xamante ne ay doomu sëñ Touba lañ wala tey jii ci waa kër sëñ Touba lañ bokk tey ñooñu tey bu ñu jugee di def di def kii nu mu tuddati di def euh, màggal dañuy toog si xalifa général bi ñu fi bàyyi ba si waa kër sëñ Baara képp ku xamante ne tey jii sëñ Touba moom mooy sa kilifa di sa di sa di sa di sa di sa di sa doom ngay doomam bu màggal amee wala dara am ñëpp dañuy ñëw topp ci ginnaawu kii bi nu mu tuddati ci ginnaaw xalifa général la ñuy topp lépp luy ndigal ñu def mais yow nag yow yaay jigéen ñoo xam da ngay ñëw danga ñëw sëy léegi xam nga yow lan nga ut si alal di jaay alal jaay xeesal ba weex jaay takki or. bu ñu waxee nga yaru yaru la fekk banditisme bi ci suuf mu ngi ci yow may wax am ñu lay défendre naan soxna Aida nangam du wax mais nit mun nga bañ a wax mais jëf bi gën a garaaw wax bi lan lay wax amatul lu muy wax parce que bés xalifa na ba seet béjjo nelawee sëñ Mountakha wax wax ji dem bu affaire bi bëri coow mu dem ba ca kër ga wax loolu bu doon sëñ Saliou Samb moomu yoonu sëñ Touba la topp toppul intérêt man xaalisam ak li muy dugal ci poosam ak ay topp toog ci taatu taatu jigéen ñi. jour boobu si boppam moom si boppam dina xam li yàlla wax ak lu yeneen di wax mais ñoom lijjantiwuñu li yàlla wax lijjantiwuñu lu yeneen di wax ama ñoom lan la ñu wax ñoom li ñuy amee xaalis ak jaxase ay nit ak seytaane ak kanamam boobu di mel ni golo balaa maa dee muy taxaw di dafay aaya dafa ñàkk jom sëñ Saliou Samb dafa ñàkk jom mi ànd ak soxna Aïda Diallo boo ko xoolee sa nga xam ne bu ñàkk jom la parce que yow yow nee nga murit nga nee nga taalibe nga nee nga nee nga yow jullit nga sëñ Mountakha taxaw wax lu muy wax yow nga jël ko xëtt ko teg ko fee dégg nga di jaay ab saytaane kanamam bu tuuti googu mel ni nga ñama dégg nga naan moom mooy porte parole beeg moom mooy wax leeg moom mooy wax leeg mais loolu du dëgg du yoon man du cadre li ngeen ñëwul ànd ak sëñ Saliou Thioune sa affaire bi mett na ma ndax bu ngeen àndee sëñ Saliou Thioune màggal gi dina am su ngeen ànd ak sëñ Saliou Thioune sëñ Saliou Thioune pare na ba pare moom la muy def mu koy def waaye lu ma metti li sëñ Mountakha wax ba pare jox wax lu muy wax ne kii la fekk ki yónni sëñ Bass Abdou Khadre yéen ngeen jug fee naan da ngeen di kii fu ngeen mësee gis si yoonu Seex Béthio fu ngeen mësee gis yoonu Seex Béthio ñu ñu jannatu ku ko xam-xam ne lay màggale jannatu bu baax fu ngeen mësee gis bi màggal am ñële di màggalee Louga ñële di màggalee Ndar mais fan bi la ko indi woon ñëpp gis nañ ko ñëwul woon ngir bëgg Seex Béthio dafa war Seex Béthio ay seytaane nag di ko jey ay seytaane di ko jey mbooloo mi ko topp yëpp ay mbooloo iblis lañ ay mbooloo seytaane lañ parce que kenn kum ci delloo ci yàlla kenn kum ciy wax dara amul lu dul lekk ak naan ak taxaw fecc ak taxaw foofu naan waaw waaw naan day toppandoo seex bi waaw waaw ut photo yam topp ci ñu wër ko may wax sëñ sëñ Saliou Samb moom seytaane boobu iblis boobu moom mu naan sëñ bi nee na may ma gis ko mu naan seex na ay da yàlla sëñ bi nee na day dem Mali waaw léegi kon nee bi nee mooy kon kon Cheikh na Diallo ay na kon moom mooy sëriñ bi kon moom moom sox sañ Saali Cuun moom sa kii sa Saali Samb leeral na mbir mi sëñ bi nee na la wax de sëñ bi nee na waaw nag yi dana dem jënd ji ko fii dana dem jënd ji ko fii sëñ bi nee na yéen nag soo gisee murit yi di wax da ngeen di génn ci yoonu murit ngeen ñëf seen xol uti seen yoonu bopp doo leen nekk ci yoonu murit ba pare di tilimal moo tax nuñ murit yi ñuy wax suñu yoon nekkul ci yéen de di mbubboo sëñ Touba di def la nga xam ne du dëgg du yoon fii ku fi mbubboo sëñ Touba wala di mbubboo diine defoo dañ lay dénoncé yéen na da ngeen nekk fii di mbubboo sëñ Touba naan ay murid lañ ba pare lépp lu sëñ bi wax ngeen jël ko teg ko fee nekkee wala fi lu dajale ay nit di fecca di cëpp cëppi cëppeeg di xeesal ku la gën a teg greffage ah yéen soxnaa ñeen ñi ñoo ñu def gang bi teg ay greffage ñëw toog yéen meloo leen ni sax eh, yeneen soxna yi. fan la ñu musee gis dara am yéen ngeen yiwal ko ba mu yiw ñëw toog fan ngeen ko musee def du ngeen ko yiwal seen yoon nekku ci parce que xaalis ngeen si wut ak mbooloo ak saytaana yi nga xamante ne xamuñu yàlla xamuñu yeneen bi ay iblis lañ topp leen naan sëñ bu ngeen di xulli ay jigéen di jigéen di jiital jigéen sëñ Saliou Thioune yow beneen naa fekk nga yow beneen xaw ma astafurlaa sax ma naan sëñ Saliou Thioune sëñ Saliou Samb yow beneen naa fekk nga yow sëñ saalu Samb moom maa ngi jéggalu baax ci sëñ saalu Thioune yow vrai naafiq nga yow kër Cheikh Béthio yaa ko tas te Cheikh Béthio defal na la lu ne bii na la si inondé dimbali wuñu kenn jël ko di la ko jox yow mii jigéen parce que seen yaay sa yaay moo gën a liggéey seen yaay yow lan nga fi liggéey sañ Touba lu kenn liggéey sëñ Touba liggéeyal ko du xeesal ba weex sañ Touba ku koy liggéey da ngay mel ni da ngay roy si ñoom soxna man jaara ak soxna yu baax yi. mais du xeesal ba weex dàll sol say or toog di wëndeelu dajale ay xale góor ak xale jigéen ñu lay tàcc ngay wëndeelu di fecc du loolu la ñuy liggéeyee sëñ bu baax léegi nag yoon wu baax bi lañ la ne yoon wu baax baa nga ne du ma jël yoon bu baax bi yoon bu bon bi lay jël ndax déggaloo sëñ sëñ mu taxaan ak murid yi nañ jàpp yow génne nga sa bopp génne nga sa bopp si yoonu murid képp ku lay wax ni murid doo murid yow dama yaakaar da ngaa juug si si murid soo juug si wul woon si murid nekk murid original da ngay dégg ndigal murid original day dégg mais bu dee da ngaa juux si si ndigal seeta jo takk la nga nekk murit kay doo dégg ndigal parce que da ngay dëgër bopp parce que dafa am feneen fu la jëlee da ngay dëgër yow lii lan la ay da yàlla sonal nga ñu soof nga lëmbe nga ñu yow jannatu ma'waa sëñ Saaliw cërale ko sëñ sëñ Seex Béthio nga bëgg a jël màggalu Seex Béthio def ko ñaari màggal ngir lan ngir bëgg àddina ngir bëgg koom-koom xaddi nag dajalay góor ak jigéen may wax ngeen jël sëñ Saliou Samb moom gémmiñam di gudd bi mel ni fourchette ak kanamam googu bu xamoon nu ma ko jëppee balaa maa dee muy génn di saytaane saytaane lu naan sëñ bi nee na ñàkk fayda ay jigéen di leen jiite jigéen bi xeesal ba weex tàll ah di takki ooram di takki sa baam ngeen naan sëñ bi yàlla na ngeen dem ak moom safara rek doom yi xaj na ngeen doon yéen maa leen jëppi waaye nit da ngay dégg wax ñàkk ngeen fayda ñu naan say dafa bëri mbooloo nangam yow ban mbooloo nga am ay nitu iblis kese nga am sëñ Saaliw sëñ Saaliw Samb moom xaalis kese moo ko fa bàyyi ak doxaan ak dugg ci taatu jigéen ñi mu mel ni góoru taajal ma toog dugg ci taatu jigéen ñi lu jigéen ñi di def moom moo leen koy jottali te genre yooyu fekk dañuy ñàkk jom nag heure boo leen joxee lu ñuy wax man nit ñi li ñuy wax li jëntiwu ma ko Cheikh Béthio lam ma defal yow da ngay duur Cheikh Béthio lam la defal gëmoo Cheikh Béthio yow mosoo gëm Cheikh Béthio ba nga ñëw ci Cheikh Béthio alal moo la indi wane nga ko Cheikh Béthio doo nangu njabootu Cheikh Béthio di tasaaroo doo ko mus a nangu mais yow tasaaroo bi dala neex ndax sa intérêt la xam nga ni boo demee ci sëñ Saliou sa Thioune dëgg ak diine ak ndigalu sëñ Mountakha ndigalu sëñ Saliou doomu sëñ Saliou Mbacke bi moo fay am nga jël loolu teg ko fee sëñ Saliou Mbacke tey bu yeewu woon ñu ne ko Cheikh ay Diallo moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy kii sëñ Saliou Mbacke dina dina dina dina ne déedéet Cheikh Béthio bett na ma dina jommi ku toll ni Cheikh Béthio liggéey lu mu liggéey adduna yëpp xam ko mu tedd ah ba mu demee sax la nit ñi xam kan mooy Cheikh Béthio ndax ba mu nekk si biir nit ñi ñu bëri réere nañ ko ak li ko yàlla defal ci ay may mu fiy jóge ak ñeenteel xaw ma ab juróomeel jóge fale naan waaw waaw waaw waaw bu ñu fontoo nuñ nuñ munoo ñoo jommal de nuñ lu ne gis nañ ko dañoo bëgg nga ne taj munoo fee indi nag yi sëñ Touba amul munoo fa indi gilleem yi sëñ Touba amuloon sëñ Touba lu ne la am jumaa Masaalikul Jinaan bi wane na ko boo jëndi woon nag un milliard am nañ lu ëpp dinañ rey lu mat un milliard suuru màggal munoo fi def lu mu tiital kon nag ñoom sëñ Bas nañ la wax ak yow ndax yow xamoo ba sa yem de yow kenn du ne la buur saay na dañ naan buur buur téegal na xoonam la ñuy wax dañ lay mbéj la buur téegal na xoonam ab dof kenn ko ne moom xew gi yaa ko moom danga naan ko ci nga bokk soo nekkaa yaa ko moom. day dóor nit ñi tas sées yi yow nag ab dof nga kenn du la ne xew mi yaa ko moom yow fekk famille jàmbur ñu bokk si geño bokk ndey bokk bokk lépp ah seen jur kite fi même su si miraas sax dañuy taaj ñëpp ñu ne góor ñi ñooy ëpp doole yow sëñ bi wax la li diine wax li sëñ Touba bàyyi fi yeneen tarixa yi di ko def ba ilaa yow mi diin jigéen góor mooy topp yow ëllëg sët topp ci doom yi topp ci yow nga ni dee doo def loolu balaa maa dee mu naa dégg naa li ma li ngeen wax ndax lan da nga bañ a fay da nga naan yow daal yow yow nan la ngay nan la nit ñi di xullee lu toll ni njabootu seex beeco ñuy xoole nga leen di jiite te nga sëy si fa rek nga naan seex bi nee na maa yow seex bi ñu ko ñu ko jural ay doom yi mag